guys here is my super kanja ready I'm going to eat now gis ngeen lu ma ci palaat bi oh! cooking video today we're doing quick super kanja so follow how i'm doing it here i have one teacup of water one teacup of water benn kuddu ndox benn kaasi tiigi ndox laa am fii suppu kanja bu gaaw lañuy def the suppu kanja is gonna be very quick and yummy okay so yeah how you guys doing so I'm gonna use fresh okra and yeah the, other part of the okra is already been cut and frozen I bought it like that and then I like to use the fresh one that you have to cut by yourself as well I never tried the cut, and frozen one but today I'm trying it but I like to buy this one that I have to cut by myself so yeah cut it all if you want before you can start your cooking. But I'm just so in a hurry, I'm so hungry. So, so la neexee nga dagg ko ba pare bala ngaa tàmbali toog gi waaye dama yàkkamti moo tax maa xiif xañuma te léegi ñeenti waxtu boori ñeenti waxtu moo jot ma lekkee lii léegi rek jeex na duma lekkaat suba inshallah Yaay doole mooy may doole nag netetu waaye boo xamul netetu bi baax na waaye man maa xam netetu netetu bu wow laa jël si na jeen sob bi ma koy raxas and then wal genn-wàll wal yëpp genn-wàll bi yëpp tuuti rek lay lii rek na bëgguma sedd ñu ci bëri bu ëpp yaa ci pare pare moo jaani moo ne ne de goso yee mu tàng laa koy xoojee That's netesu. If you don't have netesu, you don't have to worry. I'll see what it's called in English and I'll put it in the video. But if you don't have it, don't worry. It's just going add extra strong African flavor to that I like. But if you don't like very strong African flavor something, don't worry about it. can escape that part. So, bubu nito, jarong na ko soo xamee géej gi mën nga koo def su dee géej gi nga bugg man xamee ma géej gi xamee ma yéen xamee ma dara sa dëkk bi nag boo ko defee ba tey boo deful géej gi defoo yéen it baax na. ko lëretu bi fii laa koy def si ko ak soble bi yëpp soble dëgg soble lëmm laa siy def maanaam soble dëgg sax ma xiifee mooy mën a wax soble lëmm laa siy def waaye soo buggee nga def genn wàlli soble am putting the whole onion but if you want you can put half onion So you see, you put your chili. This is the other part of the okra that I got that is fresh okra and it's all chopped. been chopped very small, but I'm not gonna put now, I'll wait later. kanja bi kanja boo xam ne la fañ ko dagg yëpp ba pare fruit ko duñ ko dagg woon sew loolu duma ko fi teel a def donc damay xaar si kanam all of this uh, is the face and the prawns I'm not gonna put it now too they yëpp duma ko si defagum léegi dafay xaar tuuti léegi soble beeg ñu rek laa si ñëw def si this ones are gonna wait little now is the prawns and the netatu No, sorry, the onions and the lettuce should have to naa ko si netetu ji and then nga génnee netetu ji nga wal ko neex na kay maa xiib rek ba mënuma fecc <laughs> gune gi ko mën a woy macha allah xaw ma nu tudd ku xam tuddam na ko seen petit gàlle bi gune gi ci nenu

they're very soft. Well, yeah, I'm not going to moom bu lay dee kaay bi la foo nekk man maa sonn sa xiif moom ma dëkk gis bagage nii nee sa bopp moom bu lay lii ah mu ngi bi ak libin bee nekk nii waaye ma si def tuuti ndox su loolu nëbb leen bu baax nekkatu bi ak soble gis nga ñetti tubéeg soble nga yàllandi ko tàng tuuti léegi tey ma ñëw def si yi ak beignet ama fay def tamit beignet ama fay def tamit spinach loolu spinach la and then mussels mussels and spinach ma ne spinach bi ma ko war a dóomu mokk de proven spinach la moo ko jëndoon last time te yëguñu ko mu fruit mu fruit la soo ko dafay mokk tëb so this is frozen spinach but if you don't have it don't worry prawns mussels and fish and okra but if you don't have this other okra that I'm adding now don't worry about it you can just use the one that you have in the pot that's enough see you don't need lot of water with the okra you see how it's like almost no water because this frozen one okra you have to be careful because it's going to bring some water we're going to add this mackerel then going to wait little now we, add some seasoning some thyme some maggi you can use any seasoning you have i don't have uh, vegetable stock here it's finished and this is the same thing that you can do if you're cooking meat it's just that you have to put the meat in and boil it first for at least 15 minutes or 20 minutes depend how hard the meat is until it has cooked then you add all these things boil the meat and boil it back then you put your salt I don't normally salt my rice so I only salt this the sauce Right, so now I'm just gonna start boiling the rice. You can eat this with rice or with fufu if you want. got this one. The jacket. Excellent. I was supposed to put it earlier on, but it's fine. Normally I put it together with the okra, but it's fine. It's gonna cook. It doesn't take long to cook. jolli neex ba mu ñëw def ma diwtiir yëpp I'm saying the negative is smelling. The negative is that those brown thingy, those small brown thingy that I put in there. It's smelling.

palm oil. I'm just gonna put this now, the mackerel fish. So I can just tie it here and the border right here. So I have here two kind of palm oil. One is healthier. then the other one not very healthy. going to put this chili there. This is the leftover chili that I had in the fridge, uh, in the freezer. Okay, so um, palm oil here that my friend got for me. From, I think from Leeds. Someone selling it who is in Leeds, a Gambian woman. This is the good palm oil. the tasty one from Africa. This one is the one that they said healthier. Because it's, I don't know what, what. Can't be bothered using that one alone. don't even bother finding break on the comment section about the palm oil. still gonna enjoy my super Now you put it higher so the water can finish and you're done. See how he's bringing water already? bought a giant avocado from the African shop. Look, two pound. This giant avocado. Tomorrow, that's what gonna have. I sometimes make avocado an egg omelette for dinner or lunch or whatever you call it. And I'm happy with that. You guys want me to do a video Portigale. Nangral, nangral. I don't want to edit the video anymore. So now you just make it higher so it can so the water can finish. I don't want to edit the video because I want to show you how long it takes me to cook it. that's why I don't want to end the léegi tey mu ngi yar dama a woon soo koy togg suppu kànja bu gaaw noo koy toggee moo tax bëgguma fay caméra bi leen di woon yëpp léegi tey mu pare need a the is almost ready very soon it's gonna be soft the water will be finishing soon you don't have to put the fish early I put the fish early because I'm just in a hurry and I'm hungry so but right now is when you should put the fish and the prawns because they don't take long to cook you don't have to overcook that but they'll still be fine it will be fine soon the water will be finished soon the smell of the chili, the smell of everything, just the smell of Wakanja alone, people. Okay, sorry, you can come in. Kung nga yun. Did you go to the shop? Wala, wala. Okay. 장난으로 소금이라는 멜로도 있고 재미도 좀 해서 쓰고 그런

xanaa baaxul naa ci jëm xamul ne ko defal maa ngi bëgg a defal banana coconut banana bread soo paree nga defal coconut banana bread bi sama ndax coconut baa noonu da nga ko war a bëgg man dama sonn boo étudié soo ko mun a demee maa ngi war a am maa ngi lay def coconut bi muy jëlee soo war a bëgg yëpp defaral ko bu leneen yëpp coconut bread bi ba dama defal coconut banana bread ak du nekk banana bread ku amul banana bread coconut cake oh olive oil jënd naa olive oil. yëngal sama doom yi Now I'm going take the salt, for until I said leg. To more salt. It's almost ready now. Let me tell you can put more palm oil if you want, I don't want too much palm oil in Your typical super kanja will have more palm oil for of Gambian, like a palm oil. South Africa, he's white, but he said he's never seen fog before because he just moved to America, I mean, um, to Edinburgh oh. six months ago. Oh, must forgive me. Oh, yes, the one. Oh, I can't find it. He said I'm going to do that. I'm going to. Yeah, you can use it when it's fog. Mm -hmm. Okay, okay. na seen school nag seen school nekkul di tëj. non even though sometimes even though sometimes the people get tested or the school doesn't close. I think there's been like two or three people tested positive so far. te wax nañ ko school bi ne nit ñi xam nañ ko lool waaye ba tey tëj. yeah. waxal ma la. loolu est-ce yëngalal ma toog please. See if I'm going to focus on mm -hmm, That's where I was doing it from. yow de doon na nga wax ni ñu sax ne yow nag déggoo déggoo la ñu xam ne déggoo la fekk dégg nga de soxla bu baax nga ko faatu waaye dégg nga de yabaate rek kala koy xerew waxee nga naan mbaa nekkul dëkkam day day big day mungia. Oh. Mm-hmm. You can even eat it now, especially if you are eating it fufu. Then you can take it out right now. Because with fufu, you don't need to cook it too, soft. You see what I was saying now? All the fish is all melted there. It's all, all disappeared because I put it early. So you don't have to put your fish and prawns You can wait till, when I told you guys that you should put it that time. So I definitely don't clean the pot. Oh, yeah, because um, during the next time, you know, okay, I'm going to go for it. It's a coffee. Oh, yes, uh, bu ma nekk di wax tubaab su ma lay ma dem wax tubaab laay doon naa la ko nag suppu kanja bi pare na just bàyyi ko mu gën a ñeer it's ready now you can taste your salt again perfect I'll just put little bit more I know some of you could find a break thinking I'm putting too much salt it's not it's just the camera people I don't salt my rice or anything which many Gambians do salt their rice. Now the supukanja is ready. You can see. Everything is ready. It's just the rice to be finished now. Mm the rice is finished, soon, that's us done. Mm -hmm. So now is ready. The rice is nearly finished. This is your supukanja. This is how you cook it. You can see It normally takes me 30 but today it takes a little longer because I use the frozen uh, okra. So the frozen okra add more water to it. That's why it takes me even about, this is about nearly minutes now, about minutes now. But normally it's 30 minutes or even less when I use the fresh okra and I just put even less water I think it's because I was using the frozen okra so I didn't know how much water I have to put because I normally don't use the frozen okra that is chopped and frozen no even the um, I mean you guys even the other one that is frozen and chopped but it is chopped big pieces like the one I chopped earlier on I also hardly ever really use that simply because I love my super with fresh okra I know it's more hard work to chop them but I, I, I don't know if you see how I was chopping it with the chopping board you just buy like four or five and just slice them it's quicker that way but it's yummier and healthier that way when you use the fresh one so now it's done and yeah I don't know if I'm gonna film myself eating depend if I'm in the mood for that today but I promise you guys I was gonna video this so I had to that's me gonna have my dinner soon people this is around five o'clock now so yeah i'm gonna see you guys again soon if i don't video me eating i'm gonna video when i'm dusting the food when the rice is ready but yeah this is your super kanja ready now if you're gonna have it with your fufu this is super kanja ready i explained if you're gonna cook with meat you have to boil the meat first put the same water as the meat not the water should be more no especially if it's western meat meat from abroad here they're soft they're easier to cook than organic african meat so you just boil the meat for like 20 minutes until the water is coming down and the meat is softer then you add all your okra and all your onions and ingredients you know and just continue cooking until it's like this kind of consistency what's the word this kind of thickness can't speak and i'm so hungry Ooh, look at that best i think that's from the mackerel from the tin right guys i'm gonna see you guys again when i'm when i'm dissing the food guys here is my super kanja ready i'm going to eat now yeah enjoy if you tried it let me know if you tried it and i'm gonna enjoy mine and i'm gonna see you guys again soon thank you for watching maa ngay dem lekk sama suppu kànja naa leen gis beneen yoon gis ngeen lu ma yàq si palaat bi <laughs> I have all this suppu kànja all for myself see you guys soon thank you for watching